kuy woy bamba bul fàtte gaa yi bamba ku tudd gaa yi bamba doo fàtte cheikh Massamba Diop Saam moom la cheikh Issa daa yóbbante addiyaam moo di magum taalibeem ñu bokk dëkk Kajoor daana sax yokk àlliwoom ci moom cheikh Massamba Diop Saam ak cheikh Issa fàttali diggante bi lu war la ndax boole Bamba. dafa mel ni li li sëñ bi doon li sëñ bi daloon sëñ bi ci yoon bi sallallahu alayhi wa ñoom tali yu mag yooyu loolu da leen dal ci sëñ bi. sëñ bi meloon ci bi te leeral ko wax ni bëgg dara ci yonent bi taxu ma ko doon liggéeyal sopp jëm jëm bëgg jëm ji rek moo taxoon ma koy liggéeyal loolu mu wax ni daxaani ilaa madhi nabi hubbu zaatihi daxaani ilaa madhi nabi ilaa ixdaami nabi hubbu zaatihi dafa mel ni ñoom tali mag yooyu loolu moo leen daanoon ci sëñ bi ñoom dama nekkoon ñoo xam ni bokkuñ ci ñuy wax naan nuuminu bu baadin wa nakfuru bi baad ñoom danoo gëmoon lépp sëñ bi moo tax li yor moo tax li am lépp ñu am ko ci sëñ bi ndax sëñ dafa wax ni sëñ bi dafa wax ni soo ma joxee sa leen ma ma tëye la sa lenn loolu boo ma joxee sa lépp ma tëye la sa lépp ñoom nag noo joxoon seen lépp sëriñ bi. fii nag barab la boo xamante ne si ni barabu ndigal la. ndax sëriñ Touba moo joxoon sëriñ Massamba Diop mu sanc ko li ko waral lool it kóllëre gu mu amoon nag sëñ Mor Boto Sarr moo ko waralaan ndax sëriñ Massamba Diop cosaanam dëgg dëgg dëgg nax yow gële la. sëñ Massamba Diop Sam mi ngi cosaanoo fii nu toog béréb bii di neex jama Diop waajur mu góor mi ngi tudd maa ab sa Diop waajur mu jigéen mi ngi tudd soxna faa Penda Mbay muy ku teel a watt alxuraan ku teel a géeju ci xam-xami diine yépp ku ñuy wax sa Jóob moo ko jàngal alxuraan sa Jóob ak maam sa Jóob nag ñoo bokk ndey baay ak saaxari jaxee rek saaxari Faat ma ak saaxari Soxna Njaay bi sëñ ma sam bi sëriñ Tuubaa daan ànd ak sëñ Mor ànd sëli ci ci tànk ci ñu ko mën a waxee daan fekk si sëñ moor Bodo saar fii ci saam ñu mu doon kóllëre gu sax loolee moo waral kóllëre googu mu am sëñ Mor Bodo Sarr amoon sëñ Mor Anta Sali moo waral sëñ Touba di doxal kóllëre googee bi sëñ Mor Bodo Sarr wàcce liggéey mu jox sëñ ma Samba Diop ndigal ni ko demal wattal ma barabu sëñ Mor boto saar boobu ndax kóllëre gu mu amoon ak sama way jur loolu moo sabab sëñ ma Samba Diop jóge naxaj googu ñu fi jógee it daylul def direct fii daa daal di dem fu ñuy wax paaleen gii lañ njëkk a sanc bi mu ko sancee dem gis sëriñ ma sëriñ mag bi mu ko ma sàmm nan nga defak ak barab sëriñ Mor ba munu ko de xaw naa ko daan tuuti de dal na ne xelu xelu fas de munu ko foofu sori mu jógewaat pareen googu ànd si waat fii bi mu ñëwee fii nag bi mu ko saat sëñ bi mun ko noo def barab barabu sëñ Mor ba mun ko ab seen dale mun ko àkk saam foofu la fu faay barab ba loolu moo waral sëriñ Massamba def fii sanc ko bi ko sante it ci ñett yi rek sante diine ak lislaam ak ngor moo fi wéy ba néeg nitim nag maanaam taalu jàng yaa ngi fi ñoo ngi fi sàkku xam-xam waxtu ne ñoo ngi daan son seen doole di liggéey ba daanaka ma naan lii nga gis ci dëkk bi lépp ñu réaliser ko maanaam ñàkku tëli bi nga si moom la ñuy ji ci li wër dëkk bi muy mbay mi rek ki leen koy moom la ñuy def bu noppi delluwaat ko ci daara yet mi ngi ngi dox bu baax a baax nga am suñu ko lislaam ji ne suñu ma sàmm bàyyi woon daal ngëm nañ ko suñuy loxo ci fu suñu des na ko dundal nàmpatal ci xale yi ba ku fi bàyyi koo mën a defaat comme noonu ba nga am si ni taalib mag ñoom bu fay bu mukk sëñ ma sàmm Diop moo ko sëñ Tuubaa ñoo daan bokk benn lal maam Ceerno bel beer ab lalam fee biñ ne foofee muy jàng ba yàlla def nawet bi jot sëriñ ma sàmba Diop ànd ak sëriñ tuuba dem tool biñ demee tool ñu sas leen sëriñ waa ngàbb euh, téere bi ci benn loxo bi ak kurus gi di jéem a bàyyi benn loxo bi sëriñ ma ne ko lii de moom lii de moom lii de moom Ahmadu dana dakk ndax mën naa ko te dinaa ko def dinaa bay saw sas bay saw sas yow nga toog bi mu defee noonu ca ëllëg sa ñu ne ah, ah, ñu sas gisuñu sëriñ Tuubaa ñu ne ana ana ana anam Ahmadu ñu ne Ahmadu de dikkul sëriñ ma ne man maay bay saw sas bay aw sasam ñu ne ko Massamba te tee ngaa wax loo man mu ne bu ma ko wax bu ma ko mën woon du ko wax ñu sas bay sëñ Masamba teel a jeexal ci ëllëg sa ñu sas sas yu mag bay jëkk ko fekk nag njaatig li nee na kat suuf tey jii de ku ñu jëkk danañ wàcc dañu añ wàcc la sëñ Masamba ne waa baax na bi ñu bayee ñu jëkk ko. ñu ñëw añ wàcce ko bi mu ñëwee ci kër gi sëñ sëñ Massamba ne ko sëñ Tuubaa ne ko Massamba mu ne ko Mbàkke mu a ko dégg naa dañu añ wàcce la mu ne ko waaw mu ne ko yow sama loxo sa si mooy séddale te foofu sédd ab cër yi jafe na fa te dinaa la sédd ba nga doyal yàgg sa booba jàng xew sëñ ma sàmba sëñ sëñ Isaa dafa daa dem ci li ma dégg mhm. di fa tërallu saa bu demee di ko laaj ko tedd ki mhm. sëñ ma sàmba di fi jógee di dem ci sëñ Tuubaa mu di ko mu di laaj sëñ Isaa te boobu gisanteeguñu waaw ah, loolu dafa am na ci maanaam um, diggante Seex uh, ma sàmba Jóob moom ak uh, sëñ sëñ Isaa diggante bu bu yàgg-yàgg mu yàgg-yàgg na lu ma ci sëñ Isaa nett loo xam ni moom mën ma ko wax ci télé mën ma ko wax ci ci rajo wax am na lu ma nett ci diggante diggante sëñ ma sàmba Jóob ak si Isa ak lu mu nekk digal si Adama Gueye ak moom Cheikh Ibrahima Fall am na xam du ma ko <laughs> ndax du du du du rajo daal boo gisee boo gisee boo gisee waa kër sëñ Massamba Diop ak waa kër Cheikh Issa Dieng ak waa kër sëñ Daaru di ñenn di di di di seen lépp benn la maanaam ci Serigne Touba la woon loolu moom xam naa ko ci ci li ci ci gàttal Serigne Serigne ak sëriñ Massamba Diop bañ àndee yàgg tax ndax da daa ñëw ci sëriñ Massamba Diop saam maanaam def ko mag moo xam ne sii ni mm, lu muy laaj la mu la koy laaj lu muy joxe ñaari dik ko jox mu di ko jàllale sëriñ bi. ci sunu jaxasoo ci duggalante ci mbokk gi duggalante ci euh, dëkkandoo gi duggalante ci sëriñ Touba lépp rek. njóobeen mooy Mbàkke mooy njenn rek njenn mooy njóobeen moom benn genn kër lañ duñ ñaari kër kon ñooñu si ànd yàgg na rafet na mhm. ñi ko xamit ànd boobu doxal nañ doxal nañ kóllëre gi fu ñu fekk ku sant Jóob ku sant Jóob fu ñu fekk ku sant jenn kenn ku ne jox nga sa moromu cër mhm. ndax ànd bu rafet boobu Sëriñ Masamba Jóob ànd nag Cheikh Issa Jenn xaddiya bàmbaa ko jagoo waaye jagleeg seex isaa la tuubaa li abdin muridin saadixin lahumu bi xidmatin aw bi hubbin aw hadiyaati ana ban murid saadix bu dëggal te rafetal moo matale ñett yi ci cofeel gu mat sëkk diggam ak sëriñ bi ci liggéeyal ko ci lu ñépp teg seen bët ci joxe xaddiya ci lu ko kenn fekkul ah addiya yi nag ni nga ko waxee rek Cheikh Ibrahima Diop Massar misaal na ko Cheikh Issa Diène bindkat yu bari misaal nañ ko ci moom sëñ Mor jooja dafa dégg nga li ma xawe yun bi fi fihlil xayri sa baaxu xayati nadimu li ahlilaahi fi kulli hadrati nee na sa Issa Diène ko amoon kartan la kartan gi du kartanu xeex kartanu jëf lu baax la bi fihlil xayri daal ne sa baaxu xayati rawante bi fa ñëpp yem foofu la tàmbalee nadimu li ahlilaahi fi kulli hadrati pays bi góor yàlla nekk rek yàlla may na ko fa yoon mu mën a toog bu la fa waxtaan ak yow addiya Serigne Touba da ko boole ci ponk yi nga xam ne murit bu nekk ci lay dëggalee ak taalibeem kon euh, Cheikh Issa bu bokkee ci ñi nga xam ne Serigne Touba jëkkale na jëkk na leen a defar ba ñun ñoo ñuy àndoon ak Serigne Touba ñoom la ñuy teg bët du rëy ñoom kon bu ñu tuddee Cheikh Issa warees na ci mën a sukkandiku euh, soññi ñëpp ba nun dongo yi ñu gën a fonkaat xam ne àddiya dafa bokk ci ponk yi nga xam ne mooy tax nga tudd murit bi xidmatin la wax aw bi hubbin aw hadiyaat addiya moom euh, day nekk lu lew bala nga joxe addiya li nga joxe day day nekk lu lew ndax euh, lu lew moom mën a barkeel ndax euh, li nga li joxe bu lewut mi ngi mel ni sangoo sobe sangoo sobe loo ko sangoo sangoo du du du tax nga set Euh, kon euh, moom euh, addiya dafa dafa nekk lu lew sëñ dafa wax ni addiya day fekk lu dara nekkut moom moom mu def fa dara xam dara nekk foon mu def fa loo xam ni ñëpp xam na ni kii addiya yi mu doon joxe moo andi loolu day day fekk itam foo xam ni fekk itam loo xam ne dara dafaa nekkoon lu tuuti mu bareel ko. addi mm, day def loolu day fekk lu tuuti mu bareel ko ba ba nga xam ni eh, addi ji rek moom moo indi loolu nee na day fekk tam lu bari loolu tam amut barke mu barkeel ko. hadiya mooy jaamu suñu borom bi li mu te li mu coobarewul ci moom ci boppam. nee naa ko def ci yoonu yàlla ngir jëmi suñu borom. mooy naa ko coobarelu yàlla def ko jox ko nitu yàlla. mu defal ma ko ci yoonu yàlla ngir jëmi suñu borom. loolu mooy hadiya hadiya boobu nag dina fekk fa dara nekk mu yokk ko barkeel ko dina fekk fu dara nekkul it mu def fa dara loolu lay jëriñ maam Cheikh Ibrahima Fall radiyallahu taala anhu sëriñ Bara Diène dégg naa ci làmmiñam mu ne xorom su ma saa manqué dendandoo yi muy soxna yi ñëw ni ko Fall xorom daa manqué ji manqué ci kër gi mu ni manqué wul sama kër kër sëñ Bamba la manqué ndax su manqué kër sëñ Bamba manqué ci moom so so ab bare kër sëñ Tuubaa rek bari kon loolu day wane ne ëddee ku ko ñemee da nga bari lee waaw loolu loolu royteef la ba tey ci ci ci ci waxin yi noonu la mel rek benn boo lebal sëñ bi rek mu fay la téeméer hmm. te loolu alxuraan moo ko masal si suñu yoon foxoon am wàllum fi sabilillahi kam masali habatin anbat sab asanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habatin wala yu daa fi li man yasa wala waasiun alim booy ji gerte dugub benn dugub boo ko yée ci suuf bu saxee juróom-ñaari taat lay nekk ci maanaam su meññiwul sax mën na ko juróom-ñaari juróom-ñaari gub yooyu gub bu ne dana mat muy juróom-ñaari téeméeri pepp te benn rek nga jiwoon noonu la jaayante ci ëddiya ak jaayante ci def lu baax du ak dundal dundal ci lislaam tiyaabaam noonu la toll. kon nag loolu ab taalibe bi mën na ci sukkandiku bala mu bëgg defe naa mu am ko. yonente bi alayhi salaatu wa salaam wax na ni. inna mimma yaxfirullahu al abda an yasurra aqaahu al muslim bi ay wasla min al wasail ka hadiya la jëkk a wax aw bushara aw kalima tayiba yéen bi sax moo ko wax bokk na ci li nga xam ne yàlla day jox day tax nit ki am ak njëgal xam la mooy ak njëgal yàlla daf lay jéggal li nga defoon lépp ci ay bàkkaar te la topp dara bokk na ci la koy may nag la yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax ni inna mimma yaxfiru laahu la abda an yasurra axaahu muslim bi ay wasila min al wasail ka hadiya aw bushara aw kalima tayiba moom nag doonoon na koo xam ne ràññiku woon na ci ndax dafa doonoon fa bokkoon ci ñi nga xam ne sëñ Tuubaa daf leen a teel a gërëm ndax pëstéef bu kawe ak yitte ju kawe ak la mu doon wut si mu ñor ko ba ko sëñ Tuubaa gërëmee it doon na koo xam ne dundam gépp joxe addiya dafa bokkoon ci li nga xam ne ay ndawam ya dem ci sëñ Tuubaa saa bu ñu jógee fu mel ni Gosaas di dem bu ñuy dem dinañ taseeg ñi nga xam ne ñoo jóge woon ci sëñ Tuubaa te moo leen yabaloon doonoon na jëmm joo xam ne itam ku ne xam ne ne sëñ Tuubaa àggale woon na ko foo xam ne ci wóolu ko dénk gi mu ko dénkoon euh, liggéeyu jumaa yi njaareem doy na misaal ci wane na Cheikh Issa euh, bokk na ci kubaraaw yi ci kilifa yu mag yi nga xam ne murit buy bëgg ku mu rey rek boo xoolee ci jëmmam war naa mën a doy boo xoolee itam euh, tey jii kër gu mag di nga fa gis ay liggéey yoo xam ne moo ko fa def yu ràññeeku ba àggoon na sax ci ay xeeti sikki ay xeeti ameublement yu mu daan liggéey Sëñ Tuubaa àggoon na itam diwut ay ndaw yoo xam ne lu ne leen di neexal te lenn rek la soxla woon mooy lu lu baax ca kër gi rek dee leen ma ko xamal kon Cheikh Issa doy na sëkk misaal ci wane ne dongo bu ne war ngaa góorgóorlu teg sa bët ci modèle yooyu nga xam ne Sëñ Tuubaa moo leen fàgg moo leen melaloon noo xam ne tey jii euh, ay ay ay ay siraajan mu niir lañu ñoo xam ne tey jii ku bëgg jamono leer ku bëgg génération yi am ñoo xam ne ay référence lañu mooy ñu Sëñ Tuubaa defaroon. loola jëf moo koy maye wax du ko maye. kon nañu góorgóorlu bu baax ci di jox sunu ñaq ba mu ñëwee ne Serigne Touba damaa bëgg tund mbul ak Kajoor ku fa nekk sawara du ko yey Serigne bi ni ko tekk ba mu ni ko loola de dana mën a am waaye bi sartin ci sart lay mën a amee nañ la jox seenu ñaq koo mën da jëriñoo aw ñaq mënuloo ko dara ah loolee moo tax ñu daan wër ëdd yi di ko laaj di ko yan di ko yóbbu kër Serigne Touba ngir bëgg kenn ku ne saw ñaq tabbi ci masalu lazina yunfixuuna amwaalahum fi sabilillah misaalum ñay joxe seen alal ca yoonu yàlla neex na wax ab baykat wenn pepp dugub la suul mu bi focc di ab gupp gannaaw walaahu yu daafixu li man yashaawu benn dërëmul àddiya fukki junni yoon ak ñaar mooy lim bi gën a néew ci ab ful diine lislaam yoonu jaayante la tax suñu boroom jëndante ak jaamam yi ko gëm aljana ci seeni alal ak seeni doom cheikhul xaddiim feddaliku yàlla moom yi mënee su la jaayante ak moom lu dul dañoo doxale wasila ko mat suñu diggante ak moom tax seex yi saa jenn teel a xam yoon wa sóobu màng léppam jox sëriñ bi fànn yi nuy liggéeyale sëriñ Tuubaa yépp mu jaar ca waaye tànn àddiya mu di aw yoonam lépp lu mu mësa yaakaar ni sëriñ bi soxla na ko mu wuti ko te ay limi lim la cay dajale jox ko taxoon Cheikh Ibrahima Diop masar naa ko ama hadaayaahu laa tusxaa ahadin bin nutqi bil fammi aw bil xatti bil qalami la mu jox sëriñ tuubaa ci hàddiya làmmin mënees koo tudd waaye xalima mënu ko bind la mu ko jural mooy sëriñ bi fu mu mës a toll xelam di nekk ci Seex Isaa bagaas ya sax far ñoo naan ko bul fàtte Isaa ak waa këram bépp barab ci kër sëriñ bi defal na ko lu koy taaral waaye tamit bàyyi na fa luy firndeel jëfam boo bëggee gis góor yàlla gu boole àdduna ak alaaxira di borom wilaaya ju feex demal njën nekk lagan hadiya dina waral fan wu gudd tey taxa am bayre xoolal ci réew mi ñaata entreprise lañu duppe njën nekk lagan hadiya dana taxa raw say moroom ndaxam moo Seex Isaa jiituwul ca kër sëriñ bi waaye addiyaa ko jël teg ko ci kanam mu jiitu ñépp Hadiya Takhshan Issa di seex bu siiw te am bayre kawe màqaama te rëy wilaaya sopp lu lool te bari soppe ñeme Hadiya Cheikh Issa jenn warta bett kenn bi muy dem ca kër Serigne Touba la ko baayam Serigne Ibrahima yóbbante addiyaam dénk boppam Bamba ni ko tële moo teem egsi ndeyam soxna Mariama Diop Serigne bee ko woolu céyeen ngir baril lu muy joxe addiya fa la wàcceeb liggéey bàmbaa ko taxawu rob ko ni soxna faati isa fàttaliku magi taalibe ya daa dar cheikh isa jenn ku mel ni ki sëriñ daaru ngañ tàndine sëriñ moor ture sëriñ ibrahima mbeng sëriñ ahmadu daam surang sëriñ muusa cële sëriñ moor jenn sëriñ jamil jaañ sëriñ moor mati wadd sëriñ ali sëy ak sëriñ abdoulaye jóob sóori ak ñeneen ñu mel na ñoom ñaanal suñub xalifa Cheikh Abdou Latif Diène mu yàgg fi te ba àggale naa li way jur yi ak mag ñu baax ñi ñaanal Cheikh Mouhamadou lamin Baara Diène sëriñ Bassirou Diène ak Serigne Mbacke Diène yal yàlla yokk leeri Serigne Youssoufa Diène ak Serigne Ahmadou Dame Diène yàggal fi Serigne Cheikh Alim Diène ak Serigne Abdou Salaam Diène may doney Bamba Cheikh Issa tànneef la ci tànneefi Bamba ay taalibeem ak rëy Pastef ñaq ak ñuq ak ñuqi lañu leen ràññee bëggante soppante lépp lu ñu song daan ko yàlla nañu leen Cheikh Issa fayal ngeen jot suñu vidéo nag foo leen toll si biir réew mi wala si bitim réew ngeen di abonné fii si Tawfekh Production ngeen mën a jot xam ne xam li nga